jëf TapTap Send soo téléchargé application bii di TapTap sant dinañ la may 10 euros ak code promo Lutte TV. salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte ak contentement di ànd yéen saa su ne si ay programme Lutte TV ki ngeen jàkkaarloo nag yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté si wàllu làmb waaye avant dara rek dañ koy dalal nuyu ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan si Lutte TV Mame Less le grand coach sama waa ji sama xarit maa salaamaaleykum Boucar salaamaaleykum waa Lutte TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen bëggee di leen baal àq di leen jégalu aussi ci coono bi chaque fois li ma leen di wax rek ngeen déplacé wu ñëw géejawaay sori na mais lépp luy doxal làmb rek ci ngeen di dox ndax lépp luy innové ci làmb yéen a koy def lépp lu ko yokk ba nit ñëpp di ko seetaan muy ci côté pay-per-view ci côté information bu baax luy jariñ làmb Boucar yaa ngi ciy sonn ndax li ma lay wax chaque jour rek àll bu ne tase nañ fa région bu ne tase nañ fa léeg-léeg sax ñu bokk reportage tey nga ñëw géejawaay ma am ci contentement di nuyu suma frères yi sumay mag suma taaw bi nga xam ne sama papa moom la fi bàyyi bu mu dëddoo àdduna muy grand góor a suma rakk Cheikh xam nga ko depuis Allemagne laay jóob suma mag euh, Jean Claude ak Pape ki nekk laa Boker ki nekk les Moreaux ñoo ngi leen di nuyu du nuyu waa Darou Moussi du nuyu waa Darou Moussi du nuyu Xaddam Diop depuis Toulon du nuyu Ndey Diop depuis Darou Moussi ak maire Khady Ndiaye docteur bi dëkk Darou Moussi nga xam ne man presque mën naa ne waa Darou Moussi ndax sama kayit yëpp Darou Moussi la. donc du ma ñàkk di leen gërëm di leen nuyu suma xarit yi Youssou Gueye ak Abdoulaat Gueye depuis Bolzano maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp euh, di ñaan aussi Boucar lii ñuy waxtaan maak yow yàlla buñ ñu ci nit ñi xeebe yàlla na doon loo xam ne luy jëriñ làmb la ak lu yokk làmb ñoo ngi lay siyaar baax di la bëgg ci coono yi ngay daj. di la bëgg yow moom sama waay nga yow on est ensemble xar bi jeex na. waaw xar bi muusali de léegi laa ko këlëmti ko waaw. daal jeex na daal ah. mm. du ma lekk jën aussi. non man duma lekk jën yàpp. allergie. non non depuis booy laa ko tàmm parce que yàpp rek laay lekk du ma lekk jën franchement suma waa kër xam nañ ko moo tax yàpp yi du yàgg waaw waaw. Zos du naan ataaya Mamles du lekk jën sama waa ñu jóge foofu noonu te tey kenn mënul dalal Mamles wala ku xam Mamles xam ko ci làmb ñu jékki-jékki Covid ñëw làmb taxawoon toog ay weer daanaka at boo xamante ni tey benn activité amul. li ñu naan xalam damoon na bay neex ñu demaat ubbiwaat ba gaa yi am yaakaar mën na ne tax say tey fi mu toll nii fin de saison lañ nekk. un mois moo soon si saison bi mën na ne tey les combats les plus importants tey si si si saison bi si si moom si lañ juboon ñu arrêté waat affaire tey en tant que coach en tant que tey ku bokk si njabootu làmb naka nga ko dundee. dëgg la euh, euh, li olof Ndiaye di wax rek xam nga dañ naan bët du waaye xam ne bopp attan xam nga seen kër gi ngay dëkk di fa bu ñu la yëkkati woon ko ko yëkkati euh, làmb moo xaw a xajam en général te ñi ci war a dox. war cee wax dañ ci dul dox dañ ci dul wax te buñ déggee teel rek ne damm na te balaa ngaa xàppeeku da nga naan tekk boo ne tekk rek li sëñ bi waxoon tekk war na yoon euh, làmb amul cëfër cëfër làmb du fitna làmb relation la làmb connaissance la làmb contact la looloo tax ñu ne looloo tax ñu naan làmb contact la ci mbër mi gën a soxla loolooy àdduna loolu la nit ñi soxla loo xam ne dina avancé loo làmb mais di yee fitna ci làmb wala ngay woo ay mbër naa leen ñëw leen tey dañoo aj kii bi ñëw leen ñu dekkoon na ci arène nationale wala ñëw leen ñu def lii loolu du solution nit ki même boo dee kilifa wala ngay dirigeant wala ngay manager wala ngay promoteur sa làmb yàqu doo woo nit ñi. gis naa nag Alain Sànq xaw ma Alain la promoteur bees bi bu bi nekk Reine dakaar Dakar vraiment ku dit ku dal ku teey koo xam ne daanaka bu yu yokk làmb rek xam-xamam boo ci jariñoo sa làmb ju mën a dox Sénégal dana ci yokk ñu ngi koy sant aussi di ko massawu metti na mais man bu ma soyoon li gën a metti ci Papa Sow la Boucar Papa Sow état bi dañoo war a njëkkati ku ne vingt million wala vingt cinq millions wala buñ ko mënul ku ne dix millions ñu woo ba nga ñëw mu bañ a jaar ci benn ma yàlla ak benn parparloo yëkkati ko jox la ko ndàmpaay billahi wallahi taala ay metti na man damay waxee ak maanaam li nga xam ne moo nekk sama kër sama xol te ak ni ma bëggee làmb euh, da ngay xool combat boo xam ne ñaata yoon lañ ko reporté te ñaata yoon ak li ko waral mooy Covid bi te ñi naan foo Covid foo Covid mbër du jot te promoteur du jot promoteur yi ngi jot léegi nag tey moom bii moom mbër a aye waaw mbër moo aye parce que mbër yi boo xoolee préparation mbër ak mbër li muy voyage ak carburant bi mu utilisé ak raison yi muy dem ku ne méttiwul rek yaakaar naa doo nitu làmb boo gisee ma ne la ñoom ñaar dañ leen war a woo ñu toog ñu yëkkati enveloppe bu 20 millions jox leen barke barke alxuraanu karim maanaam dépense bi ñu dépensé ak coono gi ñu teg ak entraînement ak lekk ngay lekk waxuma dara nga dugg regroupement. surtout Papa daal boo ko sañoon ku nekk dinañ la woo jox la ndàmpaay parce que ni ñu ko waxee tamit dafa métti ku si nekk tey préparé nga sa combat deux fois yoo xamante ni tey de suite dañ koy reporté Boucar li ma lay wax làmb laa lay wax waxuma la pour par parlo wala pour nit ñi ne guy ga wala pour daqaar ga dama ne la pour nga wax fi loo xam ne nit ñëpp Sénégal yëpp nee nañ gonga ba Boucar amul yow sax di nga nit ñi ne sa micro baaxul wala na mais dama ne la Sénégal kenn mënut a wax loo xam ne nit ñëpp dañuy ànd ne gongo foo waxee lii diwa nga ci gis boppam wala kee nga ci intervenir wala kee nga ci wax yoo xam ne am wax sax xam ko mais dama ne la man li ma wax ci làmb te xam ko ci làmb dama ne ndàmpaay bu ma soñoon Siteu ak Papa Sow ñoom ñaar ñëpp laa yemale ay frère lañ comme ni nekk samay frère comme ni bokk ñoom dama ne kenn ku ne ministre Matar Ba war na la woo ba nga ñëw ci bureau mu yëkkati enveloppe bu matul vingt millions wala 25 millions au minimum mu mat 10 millions xam dañ leen koy jox ñoom ñii nga xam ne seen combat dafa mujjee yàqu muy ay xale dégg naa sax am na xale yoo xam ne ñu ngi leen di influencer ci làmb pour ñuy gën di wax loolu defarul làmb te da dugal sa bopp ci guuta boo nekkee xale nekk mbër ma bëre woofu fi lu mat ñaar fukki combat bëre woofu fi lu mat fukki combat kon donc bu la nit ñi dugal ci yenn détails yi mbër mu ndaw day xam fa mu war a yem ak étape ba mu war a yem mais mbër mu ndaw di tëkkale boppam ak Balla Gaye xam nga ne kooku waxu ku dof la yaa ngi dëgg te bëgguma ñu naan mbëri dañoo dof mbëri noble lañ mais noble bi aussi dañ koy teg ci njekk ak teraanga problème bi ñoom ñi ngi jug naan CNG CNG nii niñ ci jotee ñoom noonu lañ ci biraa di jotee biraa ndax loo xam ne état la Bira Sène mënta xëccoonteeg état donc bu jafe-jafe amee ñu ne police mënta am fii ci senegal war nañoo xam kat ne ah lii kat du problème CNG waaye ku jug na CNG CNG wax nañ fi CNG ba Alioune Sarr dem wax nañ ko fi te waxtaan nañ ci maa yow Alioune Sarr lim fi def ci àdduna beneen président CNG dootu ñëw ba def ko fi ndax c'est un doo xam ne lépp lu muy def rek ci yoon la koy teg te du ko booleeg wax te Sénégal nag dañoo bëgg ngay def di wax. yaa ngi dégg Bira Sène mi fi yàlla teg bi biñ ko fi tegee bi ñu doon départ ñu ci bari dañu woon gongo tey ñi ngi nii naan Bira Bira Bira loo xam ne état moo jël décision pandémie la pandémie bi feebar bi am na mais même buy rey mag ñi mi ngi ci boole gone yi léegi donc nag état jël ne mbooloo mi war a dajoo ci làmb ak làmb nu mu mel làmb culture bi ci nekk rassemblement bi ci nekk yaa ngi dégg nit ñi dajee connaissance yi fa yi fay daje yëpp yaa ngi dégg buñ ne tey dañ koy aju diir war nañoo comprendre te na xam ne lii kat du CNG moo moo moo moo dogal lii yaa may dégg CNG du lu muy dogal CNG état moo ko jox ay instruction via ci ministre bi te ministre bi aussi dégg naa ñu dafa tawat kon nag yàlla na ko yàlla yëkkati ba mu nekkaat ci activité am. na ko yàlla yëkkati parce que yaakaar naa yu mel ni bu daan am dañ ko daan gis di ko si daan dégg waaye tamit est nekkul ne tamit euh, làmb lañ ciblé làmb lañ néewal doole est-ce que nekkul tamit ne moo amul bàjjen ba tax daal lu jóg ñu ne nañ arrêté làmb te duñ xool maanaam conséquences ba mu des ay weer wala waaj combat ba mu des semaine wala waaj combat bañ ne suba nga war a bëri parce que journée rente Dakar bi am na mbër xamante ni tey le ne maanaam làmb ji annulé nañ ko te loolu yaakaar naa ne métti la. Boucar li ma lay wax chaque fois rek gis nga làmb en général ñoom ñëpp a war a booloo ñoom ñëpp jël lépp teg ko ci loxo CNG CNG teeku mais boo xoolee tey kenn ku ne da ngay xëcc sa côté bu boobaa ñun ñi ci nekk ñëpp dañ ciy nekk rek ndax liñ bëgg làmb di jéem defar muy rafet. man ku ma xam ci làmb yàgg maa fekk ci làmb xam nga ne defar mu rafet laa xam bëgguma benn jafe-jafe am ci làmb ndax dama ko bëgg man di ko dund mooy jaramay dem fu ne nag làmb donc nag bu bu mel nii amee xoolal promoteur mm, bu fi tëgg barki dem ba mbër yi commencé ñëw ci stade bi ndekete reliquat ba war a jox CNG joxu ko loolu erreur ngi dégg tey waa Arène de Dakar ñoo aye ndaw yooyu nag la ñuy jël tooge ko waxtaane ko jël lépp nag ne CNG yow la dirigeel yirifal mais da ngay xool ne làmb kenn ku ne tey sa côté même boo meree da ngay ñëw ba ci bunt arène nationale bi nga wax fa la la nga mer te làmb loolu doxalu ko yow problème am na neel tekk bu situation amee ba mu leen na jar na génn comme ni alay def nga génn waxtaan ko ci correctement ci njekk ak teraanga waaw Matar ba moom li ma la wax rek ñu ngi koy ñaanal yàlla mu jóg ci jàmm bu dee dafa tawat yàlla na ko yàlla yëkkati jàmm ñi nga xam ne aussi corona bi daf leen yóbbu yàlla na leen yàlla xaaree àddina ak ku mënti doon parce que boo limeeri juum bari na ñi mu yóbbu bari na mais ñi ngi ñaan suñu borom ñam leen yóbbu ñëpp yàlla na leen yàlla xaare àddina amin yal na leen yàlla xaare àjjana amin oyofal suuf si seen kaw ñi tëdd fee ba tamit yàlla yëkkati leen si jàmm ak salaam waaye pour yow tey solution bi lan la parce que soo moytul saison bi fii lay jaar tëj waaye est ce que jotal woon tey ñu muñal euh, làmb parce que toog nañ diir boo xamante ne tey kon ba ñëw combat yi gën am important ni ma ko waxee rek tey taxaw nekkoon en list tey ñu waroon ko mun a muñ pourquoi pas ñu def huis clos parcelle 22000 places la tey pour man bu ñu defoon 10000 places bu kenn toogee tëb benn yaakaar naa ne saa euh, moo gënoon daal maanaam gâchis bi nga xamante ne tey def nañ ko. Boucar mooy li ma wax rek làmb bu ñu jubóowoon seen biir danañ am doole goo xam ne yaa ngi dégg peut-être lii du dem lii lii lii lii du taxawee fii mooy ñàkk jubóo gi ko waral ñàkk jubóo gi nag boo xoolee nit ñaa ngi bitim soirée yaa ngi dàqe donc nag làmb bu ñu woon seen biir. waxtaan naa ci waxati ci loolu ba tey. téeméeri kuréel ak juróom-benn am. da ngay gis mbëri ndaw sax barki démb dañuy fipp na ñoom tamit ñu ngi bër seen affaire xam nga bàyyi fi mbëri mag ñi nga xam ne ay tolloon lañ kii fayee ko ñaar fukki million ak kii fayee ko juróom million mënuñoo yem. Bogaar mënuñoo yem si impossible donc nag boo nekkee xale nekk mbër say mag giitu la toppal seen gannaaw bu ñoom ñi demee fa ñu toogoon ñoom nga toog fa. parce que noonu la àdduna doxee mais làmb xëccante bi tiraillement bi fii te làmb mooy li ma wax au départ làmb relation la. làmb connaissance la làmb contact la moo tax ñu naan sport de combat donc dañuy ñaan yàlla ñëpp dellu si waat ak jàmm ñu toog autour d'une table CNG woote journée de réflexion boo xam ne luy doxalee làmb ba ñëpp ànd nekk benn parce que promoteurs yi gis nga téeméeri kuréel a nga fa boo demee ci manager yi tamit kuréel yaa nga fa donc nag kenn ku gis naa sax manager bu woo mbër naan ko bu doon benn bitéel ci mikaay ko indi euh, su ko manager bi wax loolu yàgg mbër ma la ñuy boole ak yéen à vie parce que nit ki dafa war a joxe le bon exemple li tax ñu kat jox la carte manager bañ la ko jox am na lu ñu la wax bu situation amee yow mi manager bi yaa ko war a saafara war ko apaiser mais doo ko tàngal jër waaw. sinon tamit day défendre ay intérêt ak intérêt mbërëm. non même bu dee défendre intérêt mbërëm da ngay défendre intérêt boo xam ne àdduna la àdduna mooy Sénégal Sénégal ñun ñëpp ñoo yem ñun ñëpp benn lañ buñ sañoon làmb ji du dagg. mais situation bu la obligé njatt la ngay gis ay nit ñu naan ñu ngi gaañ ñi ngi gaañu ay amul bàyyiwul kenn ay maire rek ay ñëpp ay faatu ku ci war a faat di nga ci faatu donc ñu ne la jëlal mesure barrière rassemblement bi làmb di indi day xaw a métti métti goo xam ne daa ngi dégg donc nag mbooloo ma fay dajal ak contact bi ñuy contact ak làmb ci aussi contact deret da ciy génn lu ne da ciy génn lu ne xam ne mën ngaa bëre doo am corona nga dem tase ak ki mu dóor la ci r mu toj deretam laal la nga xëy suba ñu ñu ñu ñu ñu contrôler nga am positif donc nag daf métti loolu tax nag état jël ay mesures ne lii nañ ko dakkal fii ak quelques mois même bu dee saison bi dañ koy anticiper mu teel a ubbi aussi bu téelee ubbi na waa CNG bi teg lépp ci yoon na ren dakaar bi nga xam ne fa lañ ko arrêté jël ren dakaar jox ko date bu njëkk Gaston topp ci Pape Abdou Fall topp ci suñu papa Khadim Samb topp ci moom ñoom tafaatin topp ci. yaa ngi dégg moo mooy Pape Thialis. est a amaat a moom wala parce que loolu tamit des fois mooy andi mais bu dee dans les règles de l'art li nga xam ne moom laa xam ci dans les règles de l'art nga xam ne CNG buñ ne ci droiture lay dox ci lu droit normalement reine de Dakar bu bu saison bi ubbi woon octobre danañ la ko jëlal date ci octobre date bu la neex nga tëgg parce que yow lañ arrêté sa combat dernière dernière minute def nañ ko soq gàmmu gay gis nga fi mujjee ay combat yu bari tëgg nañ ko ci soq doog a ñëw loolu nag c'est à éviter peut-être promoteur yi waxtaan seen biir peut-être ñoom la ñoom yi neen la seen biir maanaam kuréel dafa bari ba nga xam ne tiraillement bi day bari tiraillement bi c'est à éviter parce que ñun ñëpp dañoo bëgg làmb dox information yi ngay wut si bokkat ci nit ñi pour bëgg làmb avancer làmb dox xam yi ci nit ñi waxtaan ci internet yi ñu koy jariñoo bañ koo xeexee yaa ngi dégg parce que euh, boo xoolee boo xoolee euh, nit des fois dina dina wax erreur ba pare tourner di rectifier waat boppam te loolu mën na ñàkk man lépp lu may wax daf ma damay leer na bu ko waxee ñëpp bu bu mun te wax gonga tamit da xam ne kii li muy wax seet logique luy jariñ askan wi. d'accord nga tëj bi ñu tëj làmb bàyyi yeneen secteurs yi di daw ba wala bàyyi yeneen activités di dox. non xam nga loolu ça dépent ci ñoom ñun li ñu concerné mooy làmb. soirée bay dox ak football xam nga football yi mu ngi kon ne dox mais mais ay stadier lañ jël xam nga stadier maanaam ñoo ñu nekk ci sécurité stade ay stadier lañ jël ñuy toppatoo làmb mais làmb li ci nekk bookar bookar làmb man li ma bëgg ci sécurité Sénégal sax defaguñ ko parce que làmb normalement bu làmb xasee ba démarré ba booy mbër yëpp dugg ci biir stade bi ña toog ca buntu stade bi ca biti lan lañ fay def bookar ñooñu policiers ñoo waroon génn ci biti rati ratissé leen foofu yëpp ba làmb ji set huit côté tali bi set huit parce que ñaar mooy mën a am ku duggul ci biir stade bi da nga toog ba waa stade bi génn nga def safaan ba loolu nag sécurité ba fa nekk war nañ leen a dégager kuy ñëw ñu ne an sa billet mu ngi ni nga jàll ku fa nekkul bu arbitre bu xasee ba siffler premier combat tant que wane woo sa billet ña fa nekk ñëpp nañ leen raxas ba set fu ñu mën dem nañ dem parce que agression bu bari mbooloo may toog ci buntu ba bu stade bi tase ñu raaxaloo ak ñoom ñoo koy indi làmb laa wax la ma gis tamit laa lay wax parce que tey bu stade bi xase ba démarré 16h30 nga xool ne ña nekk ca biti genn wàll gépp dañoo toog foofu rek nga ne leen carrément sécurité bi am nay oto yu am nay éléments yu doy nga ne leen carrément booy dégagé de là ku ci yor billet nga woo ko wane ñu ne demal dugg ku ci yoru billet ñu ne lu génn eh, foofu set wicc ñii njibbi di génn ci stade bi dañuy njibbi ci jàmm loolu aussi c'est à revoir maanaam li ñu war a wax lépp ci làmb war koo tënk dajale ko waxtaan ci dafa bari y a beaucoup de difficultés difficulté boo wax rek bàyyi ba ca des xam nga loo laal rek laal leneen loo xam ne bu bees la buy doog ñëw wala lenn chaque année boo xoolee sart yi génn CNG chaque année dara moo lay yeesalal loolu tey ren de Dakar bii tombeek loolu moo yeesal leneen ci ci ci ci ci sart yi déwén boo xoolee Tafa Gueye na na avertissement yi lu taxoon ñu ko daan tooy Tafa Gueye moo ko yokk moo tax ñu dugal ko ci règlement yi tey lu mel nii tamit day ñëwaat gaa yi càmbar ko war cee waxtaanee toog ci benn bërëb. sànnante ci ay kàddu entraîneurs yi nekk fa association national des entraîneurs dañ fay nekk kuréelu entraîneurs yi parce que ku ne mbër ne entraîneur donc ñoom dañ fay nekk ah waa waa waa waa kuréelu manager yi dañuy toog ñoom ñu waxta promoteurs yi toog ak lu làmb kilifa yu mag yi nga xam ne bëri nañ ba bàyyi bari kenn ku ne boo amee sa idée nga ñëw sànni ko ca réunion boobu làmb jëm ca kanam làmb dox làmb avancer ndax làmb li ma ko xamee man mooy relation la yaa ngi dégg contact la boo xam ne mbër yi loolu moom bu ñu nee contact rek xam ne mbër yee tax donc loolu nag moo war a dox làmb jëm ca kanam Boucar làmb avancé. làmb avancé léegi yow pour yow tey solution bi lan la ñu toog xaar ba déwén wala fi ak weer est-ce que mën nañu fi tëggaat ay làmb. non xam nga ki war a joxe ordre muy le ministre Matar Ba dafa xaw a jagadi te loolu mu ñëpp lay dal mooy li ma la wax na tan ak jàmm bu tanee dana génn communiqué parce que Boucar mënoo communique à la place de Matar Ba man mii tamit noonu Bira Sène ñemewu ko keneen tamit ñemewu ko njàmbe aussi mi ñu naan dafa xaw a jagati te xaw a tawat maa ngi ñaanal njàmbe yàlla na tane jàmm yàlla na tane jàmm ndax lu ci bari ci làmb sauvé na ko lu ci bari lu ci bari ci làmb njàmb sauvé na kon nag bu ma déggeen dafa xaw a jagadi yàlla na tane ak jàmm te wér jàmm incha allah bokk CNG bu bees bi ñu bëri ñu ngi leen di commencé ngaañ di leen sànni xeer parce que nee nañ ne maanaam tey maanaam ñoom dirigé wuñu ay marionnette la rek comme ay acteurs yoo xamante ne daal dañ leen fi samp di leen defloo di leen dindiloo euh, loolu wax ju yàqu la wax ju daanu saret la euh, parce que munoo ne nit ki tey gongo bu subaa nga ko def fi dara impossible xam nga ñi ngi liggéey ñaari at lañ leen fal léegi bu ñaari at yi dajul nañu def ba dajaloo ba leen diw mi mooy toog bu bu ñaari at yi matee bu ñu fi def lu am solo loolu population bi nañ war a def danañ ko def ñi siq làmb lañ war a doxal danañ ko doxal bu waree jóge fii mu nekk nii ci CNC dem ci beneen bërëb ñaa ngi dégg ba tey baax na mais de toute façon lépp lu ñuy def moom nañ koy waxtaanee bañ di ngàññi promoteur bii wala promoteur bee moo def lii wala promoteur moo teg dil nii làmb ji yàqu pour làmb mën a dox dëgg dëgg loolu wax ju yàqu la bu dara amee dañuy teey na tekk déglu information yi baax yi ñëw la ca baax nga traité ko wax ko askan wi askan wi jariñoo ko parce que man chaque fois que jëfee lépp loo xam ne tegul sama bët man wala waxtaane wu ma nit ku ku source bu leer yaa ngi dégg du ma ko waxtaane kenn. Euh, nga si tënk rek niñ ko mën a waxee d'accord nga si niñ ko reporté combat yi làmb moom mënatul am ren parce que fi mu toll nii yaa ma gën a xam mais pour déwén euh, combat yu am importance yi nga xamante ni de jot nañ leen taxawal ñu waroon leen bëre déwén mu war a amaat yeneen combat yu taxawaat. emploi du temps bi nar a chargé waat dañuy yokkaat saison bi wala solution pour yow lan lay nekk wala dañuy décentraliser génne làmb yi ci àll bi. bu ñaanee yàlla corona fi jug fi ba pare wala boog ba activités yi ministre Matar ba jugaat ci jàmm ne activités yi mën na ubbi CNG mën na teel ubbi saison bi bu teelee ubbi saison bi day woo waa de Dakar ne leen xool leen ban dimanche moo leen arrangé wala ban samedi ngeen ko bëggoon tëgg yéen a xam ñooñu jël ne samedi bi baax na. nga woo Père Gaston ne ko ñëwal. mais est-ce que loolu tamit rek solution la parce que rent DKR tamit bu bul fàtte fere nañ li amoon yëpp ba jox reliquats yi mbëri tamit fere li amoon yëpp ba am na sax ñoo xamante ni tey ni ma ko waxee rek jour yi lañ ko yëg ñooñu tey naka lañ mën a def tey ngir jox leen ndàmpaay parce que wax nga ne tey si te war nañ leen jox ndàmpaay mais ñooñu tamit tey yaakaar naa ne tamit war nañ mën a def ak au moins ñu def a def ak euh, naa yeneen bëri yëpp maanaam promoteurs yi daaw mosoon nañ mais ren mbër yi ay déggoo ma de dama wax naa la ko ci biir wax ji bu du question maanaam dama ciblé ñaar ñooñu mais ma ne muy Marley ne ko rel muy Paul bu zap Pape Thiam muy Obali Pape yëkk ni muy Buur Siteu ak ak ak ak ak Malick Ndiaye 37 fou ak Laurent ak booy Boy Plateau ñëpp ñu mosol leen mais mosol bi ci ministre bi la war a jaar directement amul sax xaaj ak seen non non bu amee intermédiaire am problème peut-être wax dama koy wax mu clair dama ne Siteu Papa Sow dañ cee gën a mettile daaw ba ba promoteur ba maso ba promoteur ba moso ba mosee daa waroon a mosaaleel ñoom Siteu ak ñoom Papa mais dese na maa leer nag ba xam loolu mos nañ wala mbëri mos na ñoom déet parce que mbëri ay góor lañ aussi benn instant waaw mais ren moom dëgg dëgg bu dee dëgg rek moo neex yàlla mbëri yee war a mos mbëri yëpp dañuy xool ñaata grand combat ñoo fi amoon ci Tapha Tine Boy Niang Balla Gaye Bombardier Papa Sow Siteu euh, suñu papa Xaadim Njaay combat mi tëgg yaa ngi dégg ak ak waa dakaar bi mbër yi mos. bu beneen fond bu gën a diis génnee ñu xam ne promoteur bi comme moo doon financé xaalisam mosoon na ñu dolli ko tuuti moom it mu yokk ci ci ci ci journée bi tuuti suukar ndax ñu ne mu mën naan benn lëwal bu foor wala café Touba. waaw waxtaan bi neex la lool yow moom suma waaye nga dooma bañal dara guddi waaye tey li nga mën a tëjee rek si gàttal parce que xam naa ne faa ñu ñëwaat fi gën a càmbaraat yeneen débat gën a yaatal waaye daal li leer balee tey moom si rapportu combat yi lañ ñëwoon doon si waxtaanee joxe nga si sa xalaat joxe nga sa avis tamit joxe nga tamit fi nga xamante maanaam tey foofu nga foofu nga ko teg ne ne wutee gis-gis muy waral marchandise di jar waaw tant que CNG bi téew ko ci loxoom dama bëgg nga déglu bu baax te li ma la wax c'est très important waxtaan maa yow dama ne tant que CNG bi jëlu ko ci loxoom téye ko problème yi mel nii rek ñoo fi dox il faut nga am dégg-dégg ci li ma lay wax dama ne la parce que. CNG jël ay responsabilités. non ci lépp ci côté promoteur beeg lépp parce que di ma la problème bi fi am barki Demba Ndiaye kooku tey bu daloon waa Rent Dakar lan la mbëri topp wax pourtant ils n'ont rien dit. te loolu mbëri dañ ko waroon kaas promoteur bu tëgg ba mu si reliquat ba indiwoo ko ñuy négocier di ko sentiment mais kenn du commandant cuun commandant cuun bukaar kenn du moom bukaar bu dee nit kuy mot nit kuy nit kuy nit kuy defar rek ak nit koo xam day rassemble ak nit koo xam day bañ promoteur ak police mel ak promoteur ak état baax la kenn du kooku maa la ko wax moom non kenn du moom parce que amul benn promoteur bu ko mën a ñëw sikk ko te làmb ji heure boo ñëwee même bu yoree sécurité bi dix heures fa la koy fekk ba keroog làmb ji tas bu dee 23h wala minuit du xaddi kenn du moom ku jar sant la ku jar gërëm la xam nga parce que sonn na ci bisu ren dakaar bi yaa ngi dégg sonn na ci ba seeni borom ñi ko tëgg xam nañu commandant sonn ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm mais bugguma lu jóg rek ñu ne CNG CNG lii am nii du côté CNG côté état la état bi nag comme moo moo moo dagg buum gi moom nag pour mu takkalawaat ko il faut mu ndàmp mbëri ren ndax mbëri aye maa la ko rent Dakar yi moom xam naa ne moom surtout Alain Jimboor yi euh, Jimbo ak Pape Pape Pape Pape Sarr borom Pikine tamit métti na seen côté lool parce que vraiment tëgg làmb bañ ne bi la ñooñu moom xam naa ne état moom ministre bi moom bu taneeg jàmm ministre Matar Ba ñu ngi ko koy ñaanal yàlla fëgg boppam ba mu dellu si sa koom war na leen woo am nu mu def ñoom. waa rent Dakar wax naa ko ci biir wax ji mënuma lu may massawu leen. parce que bu dee àq nit ak àq doomu aadama ñu lu may maslawu leen masawu leen coono ci surtout ci financement ba nga xam ne laa veille la ñu ne làmb ji mënta am te yenn mbëri balaa ñu ko jot tardivement ndax mbëri balaa moo yeewu dee day xaw a naaj ñu ngi gërëm ku mel ne Alain ci tekkaaram ak teeyam ak yar gi mu am ak dalam maa ngi koy sant man maam lees bu baax di ko gërëm ndax noonu la noonu la noonu la noonu la euh, euh, euh, doyen di doxe waaw noonu la noonu lay doxe quoi maanaam maanaam dox ak apaisé dox ak tey yow dina metti sa biir xol ak financement bi nga financé di xaar rentabilité bi ñëw fañ ko fa rentabilité war a ñëw ñu dagg ko ba nga xam ne yaa ngi xalaataat yeneen làmb yi gën a metti maa ngi koy félicité di ko remercier bu baax ci dalam ak teeyam waaw ñoom Jimbori aussi ñu ngi leen di sant euh, Pape Sarr aussi grand bu baax la des fois day toj kaani pacal lingom mais yu mel noonu balaa ngay toj di pacal da nga naan teg ba heure pacal jot ak heure toj mais gis naa ne rectifié waat na boppam jéggalu na Père Gasson Père aussi ku jar a la ku jar a gërëm la ku jar a sàggal la parce que nit ñi lañ koy foogee ak lam la la muy xalaat ak la muy def pour askanu làmb dox ku jar a sant la ku jar a gërëm la ñoo ngi gërëm axlu làmb yëpp Boucar ñoo ngi lay gërëm yow bu baax di la sant ci coono yi ngay daj pour làmb dox làmb jëm ci kanam amul àll boo xam ne lu mu gën a sori lu mu gën a lëndëm lu mu ñàkk courant yaa ngi fa toog di reporter pour doomu aadama yi jot ci làmb yi jot ci mbapat yi ñoo ngi lay sant baax di sant waa Lutte TV baax di sant suma rakk Cheikh suma mag laay Jóob Xaddam Diop depuis Darou Moussi nekk Toulon maa ngi leen di bëggee ñëpp di bëri sama famille suma yaay suma xarit yëpp maa ngi leen di bëggee baax di leen ñaanal jàmm yéen wàllu TV jërëjëf. mais xanaa ren dinaa am blouson. Euh, da ngay xool bu marché nga bëgg wala parce que marché rek laa bëgg a maye de blouson marché boo ko bëggee mën naa la ko may. waaw kon maa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 ak TapTap Send soo téléchargé application bii di TapTap Send dinañ la may 10 euros ak code comme Lutte TV